salaamaaleykum eh, mbokku internet suñuy seetaan donc salaamaaleykum mbokk internet yi euh, actuellement ni fi ñu nekk ni problème agression mom mo fi am ay ay nit ñoo fi car ay étudiants ba nga xamanteni kenn ki sax elle est enceinte mu mu mu jot ko gaañ donc ça pose encore une fois le le problème de sécurité et au que c'est quand même euh, problème yu bari yo xamanteni amna ci fi ci Bambey donc ñu interpeller autorité yi ci loolu donc problème mu sécurité là bo xamanteni ni daf fi am euh lëndëm na té xam nañu né étudiants yi ñu ngi dem subaak ngone di baganté di dem ak a donc mu nekk mbir bo xamanteni quand même euh, ñu ci wo préfet di ci wo monsieur maire képp ko xamanteni rek mu ngi ñuy dégg euh, na na na faxe ba nga xamanteni li nga xamanteni mom nous fi ci Bambey ñu jëm ko donc après dinañ mëna déglu ñi nga peut-être ay témoins lañu ci ci mbir ce qui est sûr il y a un problème de sécurité donc nañu allons police ñu allons def ay may jox leen ay moyens yu ñu euh, parce que situation bi laaj na Mmh. ah déet loolu moom baaxul donc euh, ñoo ngi déplorer le fait que ñuy woo police ak sapeur te ñëwut donc loolu aussi ñi nga xamante ni ñu ngi koy dégg waa police ak waa ñi ñuy dégg nañu fexe ba loolu ñu saafara ko suñ leen woowati ñu leen di mën di dégg waaw donc ndaw si dafa nekk enceinte donc mu ngi noonu ambulance baa ngi noonu di ko yóbbu mais am damay après naa dem waxam laaj ko mu laaj waaw ah. donc mu nekk situation boo xamante ni quand même jar na càmbar bu baax ñu ci demander préfet di ci demander autorité locale yi nga xamante ni ñoo ŋànk fii nii ñu ñu gën ci gëstu gën ci xoolaat waaw ah, donc suñu mënee am. suñu mënee am ci ñi nga xamante ni ñoo ko fekkee déedéet ñu ko fekkee ñoo xam ne waaw ah dañ ko yóbbu seen Cheikh seen Cheikh alors léegi mbir mi ah fekk na fi maa ngi doog a ñëw maa ngi doog a ñëw ah moom kon jotuñu ko def jotuñu ko def dara. ah jël na seen téléphone yi ñaar. dañu jël téléphone yi rek. mais daa tiit la tamit. yéen ñi yi ñoo leen wuyu fii nettali lim demee. donc comme noonu rek euh, ñuy ñaax rek euh, autorité yi ci problème sécurité ak ah, euh, ak ak fii ci fii ci Bambey parce que nag il faut que ñu gën a góorgóorlu gën a équiper police gën leen a jàppale ci effectif gën leen gën leen kii parce que nag faaw nag ñuy def ay ay ronde parce que fii nii. euh, la boo xamante c'est très fréquenté donc c'est normal aussi vraiment ñu gëna a gën a góorgóorlu gën euh, police pour ñu gëna am ay jumtukaay yoo xamante dinañ mëna vraiment être près de la population donc lolu ñu c'est un appel qu'on lance à l'endroit des autorités donc ci li nga xamanteni dal mom lañu mëna ñu mom moy tënk ne ci waaw donc mooy que ne dafa am ay nit yoo xamante ni dañu agressé gis ngeen ko donc ci li ci li ñi nga xamante ni ñoo ko ñoo ko ñoo ko fekkee ci li ñu wax moom mooy yoon bi lañu lañu kare xale bi nga xamante ni moom lañu ñu agressé jël seen téléphone

jàpp na ko ba nga xamante ni mu ngi woon euh, biir euh, kër ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko hébergé woon ñu ñoo mberneer Ndeye Sall donc euh, ñu bëggoon leen woon rek ne carrément dafa lëndam donc boo xoolee nii ba campus de gis nga pratiquement amut làmp gis ngeen ko noonu donc mu nekk situation boo xamante ni daal vraiment ñu ngi ci encore une fois demander autorité yi ñu jéem ci wut saafara ñu jéem ci wut saafara waaw ñu jéem ci wut saafara donc waaw donc dëkk bi mu ngi màgg si dëkk bi mu ngi am ay fréquentation yoo xamante ni du ñem ñëpp fi la ñu dëkk donc ñuy interpeller rek autorités yi ci loolu vraiment ñu ñu ñu ñu góorgóorlu ci ronde yi surtout les ronde waaw donc il faut que vraiment la police di def ronde mais nag bu fekkee ne ñoom it aussi jumtukaay yi des fois du ko mate ak leneen ak leneen ak leneen donc bu boba vraiment il faut que tamit euh, nguur gi jàppale len ci nguur gi ci parce que nag ñi nga xamanteni ni def forfait yooyu ci ci ci étudiants yi ah, li xew Ziguinchor wala mu xew fenen lolu yalla ñu ci yalla mussal mais mën na baña mu baña am Bambey parce que bu fekkee ne paaka lañu ñu songu nit donc nonu ñu rey étudiant bobu nonu nga xamanteni mo oh, moo nekkoon euh, Ziguinchor donc mën nañ ko reyee ki donc paaka lañ génn ko indi li nga donc dégg ngeen ko noonu hmm? donc mu nekk ñoo xamante ni dégg fekk nañ fi peut-être liñ doon expliquer ndaw si mu ngi nekkoon foofu di expliquer ñu actuellement yóbbu nañ ko police elle fait partie des témoins xam naa ci enquête bi de toute façon ñun Bambey TV dinañ leen ko toppal en direct comme nii incha allahu rabi lépp luñ ci mën a taataan rek incha allah dinañ leen ko indil jërëjëf xam ba suba rek ñu am ci luñu leer euh, auprès du du commissariat